ñu si beneen termo muy virtualisation virtualisation bu ñu ko waxee euh, mooy benn acte la boo xam ne da ngay créer loo xam ne virtuel la moo xam ay disque dur la ci wàllu jëm ci wàllu disque dur ci wàllu système ak leneen ak leneen exemple sa disque dur bi nga yore mu nekkoon 500 giga nga xaaj ko ñetti xaaj nga jàpp ne même disque dur la waaye nga jàpp ne ñetti xaaj yi fi nekk bokk bokkuñu fi mu toll nii mooy comme noonu noonu mu ne noonu daan couverture noonu la virtualisation noonu la mel exemple bi ñu ko waxee fii ñu si jublu nag mooy comme yaa ngi yore Windows 10 par exemple comme operating system nga jël beneen operating system installé ko ci kawam loo xamante ne nekkut ne euh, nekkut ne da ko installé comme ni nga ko installé Windows 10 te monta operating système la boo xamante ne boo ko ubbee mu tàkk boo ko ubbee mu tàkk boo ko fay boo ko fay la mu fay dina gën a leer pour ñu am euh, benn benn plateforme virtuelle il faut dañuy soxla woo ñetti moo xam machine la il faut dañuy soxla benn computer comme ñu ko waxee woon wala host host bu ko waxee mooy machine bi bu connecté woo si benn réseau rek daan ko day tudd host dañuy soxla benn machine ndax euh, kii bi ni créé kii bi ni créé ñu tuddati sax Euh, environnement boobu ñuy créer day soxla woo lu mel ne ay raam lu mel ne ay processeur ak leneen ak leneen te si machine bi ñu koy def la moo tax kon il faut mu jox ñu am benn machine boo xam ne moo ñu jox yooyu noonu yooyu ñu soxla si ay raam ak si yooyu ñu soxla il faut ñu am euh, lu ko jox moo tax computer wala xos lu mënta ñàkk la deuxième bi hyperviseur ñu koy soxla wo mooy ba léegi moom la ñuy wax VMM boo gisee mooy virtual machine monitor pour mën a gérer environnement machine virtuelle bi ak yombal liggéeyam ak host bi moo xam host bi nga xam ne hardware ñuy jox pour liggéey bi gën a yomb ak euh, gérer gi muy gérer environnement bi moom moo koy joxe mooy hypervisor hypervisor nag am na ñaari type type 1 ak type 2 type 1 bi dañ koy woowee ba léegi bare metal mooy embedded baat embedded romb na fi léegi mooy luñ dëxëñ fi ànd rek embedded hypervisor type bi mooy euh, dama koy comme man operating system laa yore damay benn programme boo xam ne dama koy installé si operating system bi kon ñaar type moo ñoo xam bare bi automatique si niveau hardware bi lay dox waaye bu dee type bi si niveau programme bi lay dox benn programme lay télécharge pour man ko utiliser comme exemple euh, Windows 10 bi may utiliser dinañ ko wan nii comme virtuel la maanaam bu ñu programme bi dina dina leer troisième bi mooy virtual machine wala ñu koy woowee guest operating system mooy operating operating system yi nga xam ne moom la ñu installé ci environnement virtuel bi loolu mooy virtualisation virtualisation mooy looy imaginer rek looy imaginer daanaka loolu lay firi daal loo xam ne da koy xalaat nii rek lu nekk loo xam ne réel la duñ ko jàppee réel dina am waaye duñ ko jàppee réel moo xam nag euh, ci computer la jëm ci plateforme benn plateforme la jëm wala ci wàllu disque dur wala leneen ak leneen boo xoolee euh, boo xoolee photo bi boo xoolee type 1 da nga gis ne matériel bi hardware bi automatique euh, fii la hyperviseur bi soqee ko muy gestu gestu gestu nga gisee fii gis nga kon hardware gis hyper gis nga hardware ni geste yi gis nga geste yi ni nga ko ni nga ko uh, indee fii si suuf nii bu dee type 2 dama yor hardware bi matériel bi operating system bi nekk si nii ba pare ma ma ma installé si operating system bi uh, ma installé si operating system bi programme bi ma soxla muy hypervisor bi moo ñu ba pare moo ñu jox kii kon ñett yi comme ni nga ko gisee nii xam naa te yi boo xoolee peut-être dina gën leer. muy dàqante type 1 ak type 2 type 1 bare la euh, niveau euh, hardware la bu type 2 niveau software la ñaata la mën a ci ay operating system nag day basé si capacité hardware bi hardware bi ngir capacité bi si la basé wu doonte am na hyperviseur yoo xamante ne comme mën naa wax ne xeetu nangam rek laa jël comme xam na ne operating system am nay xeet kon hyperviseur bi mën Euh, ne comme nangam rek laa jël wala nangam rek lu bu jug rek euh, mu muñ ko installé fan nga ko ma a jëriñoo si wàllum xaalis imaginel euh, exemple nga bëggee essayer Linux nga bëgg ko essayer yor benn machine nga bëgg essayer Linux saa ngay dem di génn beneen machine pour installer si Linux da ngaa utiliser virtualisation ngir boo ko utiliser du dem du jar ngay dem di jëndiwaat machine pour installer si operating euh, système boobu noonu mais ci même machine bi sa Windows 10 ngi ciy dox nga jël virtualisation di si xool li ngay xool si Linux benn si wàllum énergie lu machine yi di tuuti énergie courant li ngay lekk si courant yooyu noonu yëpp day gën a ndaw euh, ci wàllu sécurité tamit nga ko see utiliser exemple boo amoon na ay programme wala nga nekk koo xamante ne day jàngal lu mel ne ay virus ak yu mel noonu mën nga utiliser euh, virtualisation defar ko benn environnement boo xamante ne fa ngay tester say virus du bokk ak sa machine bi nga xam ne du bokk ak sa bi nga xam ne réel la moom ngay utiliser wo mën nga defar tamit ay lab wàllum sécurité woon na sa dugg ba léegi defar ay lab yoo xamante ne lu virtuel la comme man euh, damay jàng nangam si machine ah, defar ay lab yoo xamante ne dama koy utiliser yëpp ay virtuel la sama may jënd ay machines yu bëri di si installé lu ne ak lee ak lee waaye mën na utiliser euh, comme exemple installé boo xam ne la boo xamante ne Linux la ah boo xamante ne si wàllu serveur la jëm boo doon jàng lu mel ne affaire yu serveur defar benn environnement boo xamante ne da da nga si jàng affaire réseau lu mel noonu rek benn mën ngaa utiliser tamit lu mel ne euh, programme boo xam ne légalise la comme programme bi yàgg na nga ba nga ko utiliser ba léegi nga utiliser virtualisation di ko di ko utiliser wala exemple nga utiliser Linux ba utiliser Linux am programme yoo soxla te Windows rek ko mën a amee nga installé virtualisation di si def programme yooyu noonu di wala lu man ne jàngale comme exemple Windows bi may ubbi nii Linux la utiliser waaye Windows bi may ubbi virtualisation moom la nekkee. comme ni nga ko waxee woon euh, bokk na ci commercial yi ñu operating system yi Microsoft Windows Windows Server yi nga xam ne am na ay version yu wuute ak ay édition yu wuute version comme exemple Windows 10 moo si mujj euh, mi nga xam ne 2015 la génn Windows 8 mi ngi génnoon 2012 Windows 8 point 1 mi ngi génnoon 2013 7 2009 Windows Vista 2007 XP 2001 yaakaar naa tur yëpp si na bu dee wàllu Windows édition Windows bi génne presque day am ay édition bi génne benn euh, operating system bu bees si ay version day am ay édition bokk nañ si gën a comme bokk nañ si Windows 10 Home comme léegi-léegi ngay installé gis ay Home professionnel yu mel noonu Home ñu ngi ko defar ngir comme machine yi nga xam ne si exemple si euh, kër la jëm rek si kër wala bureau yu ndaw yi kër la wala yenn bureau yu ndaw yi nga xam ne si kër lay féetewoo ñu koy ñu si ñu koy woowe soxoo ba léegi soxla mooy small office home euh, office yi nga yi nga xamante ne euh, ci wàllu kër la jëm machine yi nga xam ne ci kër la jëm wala bureau yu ndaw la soxla woo mooy wendi som ñoo njëkk a jagleel home moom mënta bokk si domaine network wala loolu xam naa dinañ si dikkal incha allah am na Windows 10 pro wala professionnel ba léegi ñoom ngi jëm si yi xam ne dañoo digg doomu wàllu bis yi nga xam ne dañoo digg yu ndaw la wala sax euh, defa digg doomu comme man euh, professionnel exemple kan laa ko euh, bëgg a utiliser donte bu la neex mën ko utiliser waaye bu ne am na lu ko ràññeele ak morom bi comme Windows 10 Pro mën nga ko utiliser ci business yi nga xam ne business yu ndaw la comme business ngay def yu ndaw la wala yi nga xam ne dafa digg doomu nekkut yu rëy ndax bu dee yooyu day ànd wàllu mën na ànd ak ay exemple lu jëm ci wàllu réseau ak lu jëm ci wàllu gestionné yeneen euh, future yeneen euh, yoo xamante ne moo ko ràññeele ak Windows xam bu dee Windows 10 entreprise moom leen wax euh, ba léegi long terme service servicing canal ñi nga xamante ne hmm, compro la waaye licence yi ñoo du bokk comme licence yi loolu bokk moom bu ma doon jënd licence pro bi ak ñi nga xam ne entreprise la bokkuñu hmm, bokkuñu Euh, am na ay différence xam ne entreprise mën nga jëndandoo lu mel ne ay volume xam te ay ay licence yu bëreendoo la mën koo jëndandoo bu dee wendis éducation mooy yi nga xam ne ci wàllu euh, école yeeg euh, université yeeg yu mel noonu moo ko tax a mhm. kon waxoon nañ ne li ràññeeku si OS yi am na 64 bit 32 bit Windows tamit am na ko am na duñ daan wax bu njëkk Windows Euh, mobile euh, mi nga xam te ne euh, Windows mil 2020 premier janvier 2020 moom la ko arrêté woon boobu Windows 10 mobile amoon na Windows CE si amoon na sept amoon na huit mooy seen Windows fan yooyu noonu ñu fi génne woon mhm. ñu demee si wàllu operating system ba léegi mën nañ fa fekk Apple Mac si Macintosh si ak loolu mi ngi euh, Apple Mac yi mi ngi génnoon si jamono yi nga xam te ne IBM daanaka moo contrôlé moo contrôlé woon wala moo moomoon marché bi boobu la 1984 Steve Jobs ak Steve euh, Wozniak génn benn personal computer mhm. benn personal computer boo xamante ne euh, amoon na graphique ndax IBM daanaka dosuma si ëppoon graphique boobu nag moo taxoon affaire yi gën a siiw Mac gënoon siiw jamono yooyu noonu commencé kii commencé def bës <laughs> euh, Mac euh, kii Mac OS yeeg boo ko boo koy xool ak yeneen yi xool ak yeneen yi moom kernelam wax na léegi lan mooy kernel kernelam mi ngi jógee ci unit benn unit ci lañ jël euh, développé seen kernel bi dee ci wàllu mise en jour moom daanaka dañu utiliser lu naan dot exemple dot mooy lan daanaka seen mise à jour yi ñuy def Euh, dañu jël benn numéro bu mise en jour bu bees génnee ñu def point nangam continuer noonu comme exemple 10 point moo nekkoon cra ah bu dee point 13 moo nekkoon High Sierra 10 point 14 Mojave 10 point 15 Catalina yooyu yooyu yooyu yëpp Catalina yaakaar naa mooy version bu mu gis maag fi mu toll nii comme ni amee ñu 7 8 10 mel noonu noonu la mel fii rek seera xay gi comme ñoom mise à bu bees ne ginnaaw point bi rek la yokk mise à bi génn ñoom daanaka euh, bu dee mise à jour presque gratuit lay doon boo leen xoolee si suuf nii moom ngeen di gis euh, benn mag la ni euh, Apple OS moom moo nekk ni jëm si machine bu dee téléphone la comme ni ñu gisee iPhone mu ngi loolu bu dee iPhone ñu koy wax euh, iOS iOS lañ koy wax euh, ñi xam ne moo jëm si iPhone yi ak iPad yi ñu koy wax iOS comme ni nga ko gisee ni euh, moom comme format am nii demee yaakaar naa ñu bëri xam na nu mel fi mu toll nii hmm. continuer am nañ ba léegi si operating system yi comme ni ñu ko waxee woon Linux Chrome ak Android Android jëm ci wàllu Android bu dee Linux comme ni ñu ko waxee woon euh, may wax ba léegi bu dee da nga intéressé wu si Linux def na si benn formation boo xam ne lépp ajowoo si moom moo da ko fa fekk mooy Linux en wolof boo duggee nii playlist lépp da ko fa fekk si wàllu commande yi kon nit euh, comme ni nga ko waxee woon Torvald moo ko créé woon ñu ngi ko per tamit si Linux operating system ngir mu nekk boo xam te gratuit pour mu nekk affilié programme gratuit la Linux euh, Linux mën naa ba a soxla woo graphical user interface donte distribution yi euh, bu dee comme ay Windows dina am version nangam version nangam waaye bu dee Linux distribution leen wax distribution bi daanaka bi ñëw daanaka mën na mën naa wàccaaleel benn graphical user interface donte mën na koo bañ am te day dox euh, bu dee si wàllu Linux nag si gën a ràññeeku si wàllu desktop wala yëpp euh, moo xam serveur la wala desktop am na SUSE Red Hat Fedora Debian Ubuntu Mint ak yeneen ak yeneen bëri donte ni ni demee moo tax bu dee Linux nag euh, image am mën ngaa xool fii rek comme version bi may utiliser nii dañuy ab Linux la ni ñu ko gisee ni pour mu gën boo déggee ay command line mooy moo nekk nii comme da ngay ngay bind exemple mu lay commandé loolu mooy command line euh, bokk ñi euh, société yu gën a wala ñu gën a xam ñuy def ñuy liggéey wala ñuy euh, produire si wàllu Linux bokk na si IBM Sun Oracle ak Novell Euh, donte mm, Windows moo ëpp foofu comme yi ni ñu koy utiliser moom ngeen ko demee xam na waaye Linux yi daanaka school yeeg wàllu école yeeg université ak web server yi daanaka yu si bëri moom lañ dañ koy utiliser euh, Chrome OS dañ ko see boole moom it ab euh, mën na ne si Linux la soqee ko bu naan Chromium Google moo ko développé ngir machine am yooyu Chromebook ak Chromebox moom it nii la comme ni ko gisee bu dee Android ngay fekk si téléphone comme Samsung yeeg ah, Samsung yeeg Nokia yeeg téléphone yi yëpp ñu gis ay Acer Asus HTC Huawei Motorola OnePlus Oppo Samsung Sony Xiaomi ak yeneen ak yeneen yooyu yëpp daanaka si Android bi leen utiliser lu taxee di bokkuñu moom open source la moo tax comme gars yi koy jël ko développé waat si génne waat seen version bopp moo tax ba demoon Samsung Android lay utiliser ba demoon Sony Android lay utiliser waaye bokkuñu euh, même forme bi ñu yore ndax ku ne ak ñoom ko développé bu dee mise en jour yi nag ñoom it comme point nangam leen topp rek bu dee mise en jour yi nga xam ne mise en jour yu rëy la comme naan un point nangam ah comme euh, Nougat sept point un Oreo huit point un xam en jour yu rëy loo xamante ne bokkut ak mise en jour ndaw ndawaan bu dee yu ndaw ndawaan yi rek comme huit point nangam dañ ko si toppale rek dañ ko say euh, toppale mise en jour euh, boo xoolee daanaka affaire yu gàtto yu mel si bëri moom la ñu tuddee di entri euh, mise en jour yi génne yaakaar na fi mu ngi si neuf version neuf su yaakaar na mi ngi si version mhm. bu dee wax nañu wàllu operating system kon day baax ñu dugg si Euh, Windows bi def tuuti xool tuuti comme File Explorer nan la mel nga xam tuuti si euh, File Explorer wala ko fi commencé waat euh, beneen